asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah jeudi 16 mai 2019 ñu ñëw ci yëglikaay yi yëglikaay yi nag tey jàppal sunu lamb la journal Les Échos ak Leewtoo point net mu mel ni ki nag sunu lamb moom tey Rock Énergie daal la xëy mu mel ni Rock Énergie fi mu nekk nii day boo bëggee dégg-dëgg moom mu nga mel ni yarawu màgget wala feebarab màgget foo laal daal mu ngay metti wala lu mel ni safara wër ko sunu lamb xëy tey wane ñu ko noonu mu mel ni ki ginnaaw ba Moussa Yacine ak ña muy tëggandool fan yi bi ñu génnee wax seenu naqar ak la ñuy dund nga xam ne mooy Rock Énergie kii nga xam ne nag moo jiite écurie ba tey moo génn moom Cheikh Sow Cheikh Sow daal la nekkoon ci saakam wala mbuusam daal xëy na ne ko làññ sànni ko ci digg de mi nee na moom daal li leer ba leer day jàppal sunu lam ne ne moo tax AC bi ñu jëm day seen assemblée générale bi ñu war a dem le 19 mai nar naa metti lool wala tàng jëri-jëri seex Sow nag ka mu xëy di joxoñ mooy Khadim Gadiaga ak si Cissé Khadim Gadiaga moom Cheikh Sow nee na daal nee na daal dañ ko expérimentaliser muy jéem a dal sama kaw daa am ñu ne ginnaaw daal di ko ruuxee mu ne man lay bëgg a daaneel te moom Khadim Gadiaga day xam du ma moroomam te itam nag du ma sax màppandom loolu muy jéem a def ak ña mu àndal nañu ko tàyyi ñu ne ko as Cissé mu ne as moom en la ma jàppal te xamul ne en baaxul jàppal nit en moom doo ca jële lu dul ay jafe-jafe rek ak xol buy naqari saa su ne loolu mooy waxi Cheikh Sow tey mu mel ni ki daal Rock Énergie boo bëggee dégg dëgg moom seen âge bi moom metti na nar def lool le 19 mais bu nu ca yeggee suñu làmb xëy tey dina ko wax leneen loo xam ne yëglikaay bi da caa ñëw koo xam ne la moom tamit day xëy na di wax muy Gris Bordeaux Gris Bordeaux day noppeem nga mu nekke woon yëglikaay bi ne na nag jóge na ca wax na de moom Gris Bordeaux ñëw na ci écurie Fass nee na écurie Fass day coow lañ fay coow di ko fa wax amu fa bariwu fa am na écrit yoo xam ne ñoo ñëpp coow fuuf waaye xanaa kay mun noo bindoo ni tama rek ku yorob galan bëgg noo tëgg waaye daal jàpp na ne ñoom coow la ñuy dox di ko wax seen biir écrit moom demewul noonu moom Gris di ko wax ñu ne ko waa sa ñaari victoire yi am ci fukkat Gris na loolu day jàpp leen moo demee noonu wala sa sport des ngay nekk ci kaw bali nga wàcca wàcca wàcc ba ca suuf Gris Bordeaux ñëw na loo lu baree bare daal tey bi waaye kii di wala diggante Papa Sow ak Modou ko def problème ñoom ñaar ñoo bokk parcelle di ay voisins ànd bëgg a doxal seenu gox nee na loola moom amu ci benn problème boo xam ne ni gis na ko ci lu baax la kay moom Gris Bordeaux moo xëy tey di wax loolu waaye rakkam Gris Bordeaux itam day ñëw na ci nee na sama rakk ju ma sës rëkk la te ma suma rek moo tax nag bis bi mu jëm day maa ngi ko ciy ñaanal mu am ndam diggante mag rëg-rëg ndax nee na rakk la joo xam ne day déggal na ma ba pare itam te côté làmb moom jàpp na rakkam xale la boo xam ne day bu ama am talent la waaye wax ja jeexalu ko foofa de dañuy dem ci leese ko Gris Bordeaux nga fa tamit di wax ñu ne ko waaw Tafa Gueye moom la mu defoon jàppale ji Balla Gaye mu ne Tafa Gueye day moom xamal na boppam ci conscience am ne moom def na erreur boo xam ne day bu rëy rëy la waaye nit nag mooy juum ku dul juum itam doo nit mu mel ni ki taal tey Gris Bordeaux moom saf na sàpp moom tamit ci yëglekaay yi kenn koo xam ne tamit gis nañ ko ci yëglekaay yi mu xëy tey di wax mooy kii nga xam ne nii moo di booy jaxaaw ginnaaw ba ko bàyyi njaga waxee nag ne ko dama lay fekk si Thiès duma la ba nga nooy daan la ñibbi booy jaxaaw ne na ko waxal lu la neex yow daal bu la neexee waxal rek waaye saaga moom yàkkamtee xeex la bu ñu sa yeggee di nga xam ndax danga may duma wala loo may def dinaa la wan loo xam ne day booy ñibbi Dakar doo xam fu yoon wi féete loolu ko booy jaxaaw ak tontu mu mel ni kon daal tontu du forox kii moom ba ñu ko yóbboo mbuur kii nga xam ne mooy Sélé Mélé daan ko jëli bu réy ba mu ko daan moom bébé Saloum 2 mu ngay wax nag ay ambition fi nekk nii fa mu bëgg a jëm daal moom lay wax ginnaaw ba nga xamee ne nag daan nañ ko jëli bu leeral leeral leeral leer leneen loo xam ne tamit gis nañ ko fii nga xam ne nii moom moo di sunu lamb muy lit simple bi mu mel ni ki nag ginnaaw bu ñu ubbee ba ni ñu woore day yëglikaay bi ñëw na ci liñ fi jot a toog wan la wala boog lañ ci ay millions dix-huit millions cinq cent mille francs daal jot nañ ko faa def boo xool yëglikaay bi nag neuf miss yoo xam ne ne day quatre neuf yoo xam ne daal cinq cent mille francs la ca lay toll ak fukki miss ak ñeent yoo xam ne maanaam quatorze miss yoo xam ne day un moo tax sunu làmb nag dal koy détaillé daal ne dix-huit millions cinq cent mille francs bi mu mel ni ki nag tudd ni ñu mel ni ki ay promoteurs yu ca nekk ñoom Jaks ak ñoom Alpha Samb ak ay jibi général ak ñu mel ni ki noonu daal tudd na leen waaye kenn koo xam ne day mu nga ca leewtoo point net di fa wax moo di Ipo Ngari Ipo Ngari day wala boog sunu bàyyi ñoxo bàyyi nee na daal moom ñoo ko wax na nee na jàpp leen ñu ne ko diggante Eumeu seen ak Modou Lô mu ne Modou Lô day diggante ak Eumeu Sène Eumeu seen laal la ko fas yéene andil ay jafe-jafe mooy tànki Modou Lô nee daal tànk yooyee day boo bëggee dëgg dëgg ah mën na ko andil ay jafe-jafe bu ñu yeggee ca combat ba sunu papa ñoo ko bàyyi moo xëy tey di wax loolu waaye man Talla Ndiaye li ma xëyee moo doy waar xadd daal laa defu tey maa xëy xool montor ba montor ba ne ma sept heures ma téléphone bu ndaw ba mu ne sept bi may takk sama loxo o ni ma secteur te Talla Ndiaye olof ne na li ñëpp waxee dëgg xanaa ñetti montar yëpp mënuñoo wax lu nekkul Talla tey xadduma xadda daal jaaruma ci tey. salaamaaleykum mbokki sur Leewtoo TV ñu leen nuyu bu baax di leen ziar di leen jaajëfal di ànd ak yéen seen revue de comme ni ñu koy defee chaque jour ma si ànd ak sama mag sama xarit chéri teneg comme ça mu reetaanati rek comme loolay seddu xolam maaf nga nuyu naa la. waaye wax nga dëgg waaye wax nga dëgg waaye lu rey mbuum dee ca te xel wa xer wa sib xer wa téeb sàkke da cay daru. du xam nga aw sàkket ak xeer kon jeex na kon nuyu nañ internet yëpp waa te nag moom du mën a ñàkk ci daam bokk ci man mooy man maay moom daal pour mu leer nuyu nañ ñi ñuy suivre ñëpp à travers le monde ci Leewtoo TV Aïssatou Faye madame ñaa sama rakk sama xarit waaw waaw kaw ñu dugg si jàngat bi ubbeeku ak euh, li coow li nekk Rock Énergie parce que seen AG le 19 la incha allah mais fu mu toll nii coow li tàmbale na ci président bi nga xam ne nii mooy président bi sortant lañ ko mën a tuddee muy Cheikh Sow moom tey xëy na am waxtaan bu yaatu ñëw ci euh, Khadim Gadiaga Assise ñoom ñëpp ku nekk daal am na lum la sànni ci ay kàddu nee na Khadim dañ ko instrumentaliser yabal ko pour mu ñëw jéem a récupérer place am mais loolu dina fa dina ko të assisé moom daa am lu mu ko jàppal moo tax lii yëpp demee nii. waaw loolu daal liñ ci mën a wax mooy fan yëpp Rock Énergie ñu ngi dégg coow li ci tëggkat yi la jëkkee woon après même na sa problème ci problème xale yi war mën a bëre bañ dem ba ñu ne loolu réglé nañu ko après ñu ñëwaat coowul tëggkat yi tey ñu jëm ci assemblée général mu nekkaat beneen coow ah liñ leen di wax nag Cheikh Sow kilifa la mag la yaa ngi dégg. biram ñu ngi itam kilifa la mag la te ñoom ñëpp ci écurie lañ bokk xaarim nga jaga kilifa la donte ñoo ko mag waaye kilifa la parce que ci écurie ba la bëree ba bàyyi bëre tey di doxal ay ay association tey bu taxawee bëgg écurie Cheikh Sow bëgg ko ak ñeneen ak ñeneen man li ma gis mooy ñoom seen biir nañu ko jéem a rafetal yaa ngi dégg mais comme loolu Cheikh Sow wax ne xaarim dañ koy yebal euh, di ko jéem a euh, instrument euh, instrumentaliser di ko yebal ci moom loolu bu fekkente ne lu am la pour man warul am waxaw ma nag am na wala déet moom moo ko wax nit ki nag li nga wax yow la engagé yaa xam li tax nga wax ko waaye bu dee lu am la warul mën a nekk parce que pour man Cheikh Sow jiite na Khadim Gadiaga mu nekk mbër jiite na ko mu ànd ak moom di entraîner mbër yi kon defe naa ñoom bu ñu seexee dara war nañoo mën a waxtaan ñoom ci seen biir bu fekkee Khadim dafa soxla ci écrit bi pour jiite ko war na mën a dem ci Cheikh Sow wax ak moom en tant que nit ak encadreur am mais nit tamit ak kilifaam yaa ngi dégg Cheikh Sow itam bu xaadim ñëwee ci moom ne ko dama soxla écrit bi te mu gis xëy na xaadim niveau d'intellectuel am war ko mën a nangul su keroogee itam pour man bu keroogee loola mais lépp li koy indi mooy ñu waxtaan waxtaan daal aysatu ci la lépp xaj waxtaan mooy jur jàmm mais fu waxtaan amul réeroo man na faa yàgg ak jàppalante en te du ko jar même mooy loolu mu wax ci assise pour man loolu yëpp war na mën a ñàkk ah parce que jàppalante dara moom diggante assise waaw ak Cheikh Sow warul mën a ne parce que dañu yàgg seq lu ne démb indi ko teg ko ci tey bu ko defee yëpp mën na rafet ko te li may wax rek Aïssatou lu rafet moo gën lu ñaaw lu baax moo gën lu bon yal na yàlla defal ñëpp jàmm mais def lépp fu am coow daal yal na fa yàlla di jàmm Mhm. mais Babacar man euh, li ma bëgg laaj mooy ndax coow li tey du am lu mu joué ci ki nga xam ne ni mooy Modou Lo mi war a préparer combat bu am importance ci li des si carrière am. waaw non parce que bu moom tey bu dee xeex la mën nga tudd xeex boo xam ne nii la moom mooy nekk ci digg bi moo ko mbëri du ma ne sax Modou Lo kese mais même mbëri mbëri na ci écrit ba. parce que na fa Modou Lo amee licence la fa yeneen bëri amee licence di compétir comme moom mais xëy na moom mooy tëdd fil bi mu jëm ci bés bu mag bi mu jëm ak bi mu jëm diggante ak Eumeu Sène soxlawaat victoire bëgg a dund ba a dundalaat équipe bi ah ay dirigeants ne ci ay coow ay jàppal bàyyil ay demal dikkal pour man sax seen âge bi pour man waroon nañu mën a waxtaan teg ko ci suuf bàyyi ba saison bi tëj ñu joog a def assemblée générale fekk combat yëpp jeex lépp jeex ñu jublu ci defaraat seen écrit man pour man loolu la loolu moo doon xel mi bu fekkee ne dañ fee nekk euh, tey di coowoo jàppal bàyyil dinañ handicapé mbër yi moo xam mu loola moo xam yeneen mbër ya fa nekk laa duma ngi am jëm ci combat ak yeneen ak yeneen xale ak yeneen xale loolu nag pour man baaxul ci mbër yi ah. nañu jéem a waxtaan daal mu rafet moo gën li yi di am nii âge nag mënul ñàkk waaw kenn mënul nekk ne da jiite éternellement loolu c'est impossible ren renouvellement fa muy am ci association war ngeen mën a waxtaan loo xam ne yéen seen biir lay doon nga xam ne bu ase ba jotee wax du fa mën a am dara du fa mën a am dañuy ñëw rek fal kañ yaakaar moom la war a fal mu avancé loo affaire yi waaw buñ ci Rock Énergie dañuy dem seeti Gris Bordeaux nga xam ne tey yéenekaay yu xëy nañ ci waxtaan bi nga xam ne amoon na ko démb muy Tafa Gueye ñëwaat ko ci carrière am ak i combat parce que fu mu toll nii nee na digganteem ak euh, Ama Baldé am na yeneen combat yoo xam ne ñoo gën a nekk d'actualité. waa Gris day boo xoolee euh, tey sunu lamb loolu la ñu indil ci émission bu mu def bëri ki démb quartier général ci TFM ñu nuyu waa quartier général la wateen Pape Cheikh Diallo ma yore émission ba euh, loolu nag liñ ci mën a jàngate comme li Gris wax lenn rek moo am Aïcha moom mbër la champion la carrière bi itam gudd na yàgg na macha allah yàlla na ko terminer ak jàmm moom la ñaanal mbër yëpp ku ci ne sa carrière nga jeexal ko si jàmm mais comme loolu mu wax noonu si ci ci mu ci daanu moom nangu na mooy nekk benn moment nañ koo nangu xel nangu na ko yaa ngi dégg écrit bi itam ne na écrit bi coow waaw coow moom amul fu mu amul mais xëy nay nekk coow loo xam ne daal bu ñu ko teg man daal li may bañ mbirum naa fexe daal laa d'accordul mais wute ay xalaat demee noonu ñëpp mënuñoo bokk même niveau de mentalité bu ñuy xalaate la kaara Tapha Gueye ci comme ni mu entraîné woon Balla Gaye mu loolu moom Tapha moom mi ko def actuellement xaw ko euh, waaw xam na ne moom erreur na waaw jumte la loolu tamit mooy nit boo juumee reconnaître sa jumte lool ci oyof la bokk ak si jaamu yàlla parce que mën ngaa juum mel ni Babacar féeteer lu ñu wax la nga juum ne ma maa yaa ngi dégg bu keroogee dañ lay xool donc waaw leneen li ci des mooy rakkam itam gis nañ mu kii ko poussé ko ci li mu jëm loolu tam c'est très normal ba ci taxawaayu Papa Sow ak Modou Lo la mu jàpp mooy ñu war a ànd lañ bokk nañ localité ànd ba ne na amu ci lu mu ci kii da koy saluer loolu mooy li nit daal da ngay li nga xam ne ni daal moo rafet pour man tout le temps dañuy jéem di ko génne daal li nga xam ne ni moo war am ñu xam ne lu war a am la li nga xam ne warul nekk ñu jéem a fexe bañ koo nekkal mais Gris Bordeaux daal mën nañ ne carrière am ah amoon nay moment doxoon na lool waaye dem nañ ba man boomaa tam gis mu xaw def nii loolu nag mooy sport ah. waaw comme diggante mag Ama itam loolu mu ci wax mais man bu ne am na yeneen ko yu ko dàq d'accord mais amaa Baldé dafa war a bëri ak Gris Bordeaux leen boole xam nga lu tax dafa daan Papa Sow daan Tafa Guèye daan Balla Diouf te loolu lépp ci biir écrim la te dañ na Papa Sow mooy liet naaw Gris Bordeaux loolu la ñëpp di wax kon nag bu ko ñëwee daan ko façon ba mu ko daane defe naa bu ñu waxee ci cadre sport ak lamb kese lay amatu fa waaw war na ko mën jël waaw. waaye moom ci biir eh, jël combat sax Babacar Gris moom xamal ne fu mu toll nii daal moom warul ba bëre lu yées 80 millions loolu daal mooy point de vue waaw loolu itam duñ ko ko aaya ah, parce que li tax mooy moom xam na li muy jar ñi koy encadré xam nañ li muy jar parce que boo xoolee écurie Fass yàlla may na leen ci côté boobu ñoom xam nañ nu ñu gérer mbër boo xoolee Gris Bordeaux difficulté yi mu jot a traversé bu nekkoon ci beneen écurie la kon ba tey demee na neneen mais gis nga ni ñu koy encadré ak ni ñu koy tege ci aw yoon moo tax tey bu nee du bëri lu yës 80 millions ah am na fu mu ko teg parce que nag euh, maanaam comme li ñuy wax rek euh, bëriwul daal loo xam ne nii da nga naan Gris Bordeaux mi lamb na ci image wala lamb na ci ay wax wala nangam sangam loolu moom sénégalais def nañ ko saabab ci moom xëy na moo tax mu waxee noonu mais lamb moom pour man sa mbër mérito na sax plus de plus de cent millions parce que li ñuy daj moom metti euh, naka promoteur bi bi moom bu amul dara du dox promoteur bi mu déggoo li ma la mu ngi mel ni oto oto bu essence ñëwul wala gasoil fu muy dab da nga koy xool rek nii rek ndax xanaa loolu c'est impossible promoteur yi kay la ma waxoon laay waxaat ñoom yal na leen yàlla may xaalis bu ñuy tëggee mbëri suñu amul su promoteur taxaw lamb du am ay safay looloo am am ka dañuy dem ci Ndiakhobaye moom nga xam ne nii mooy euh, am na waxtaan bu yaatu ak euh, Leewtoo TV moom it ñëw na ci lu bëri ci làmb ji mais tamit wax na ci combat bi ñu jëm muy diggante Modou Lo ak Eumeu Sène mi xamal ni combat boobu Modou Lo ëpp na ci atu surtout si tànk bi muy teg suy bëre parce que tànk boobu dina andi jafe-jafe mbër ci combat. waaw parce que suñu papa Iponga Ndiakhobaye ñu koy nuyu di nuyu suñu papa Iponga yi di leen ñaanal jàmm parce que ñoom ñooy micro central lu làmb ji di leen ñaanal yàlla gën a wéral barke yonent bi sallallahu alayhi mag yu baax lañu su ñoxo baay moomu moom sama papa parce que euh, ñoom ñëpp su samay baay lañ mais moom dafa xam nit ki ay na loo xam ne ay surtout ku ku la yéenewul mënu ko daf ma teg ci plateau boo xam ne 2STV ba a mu ma teg kon moom dama koy ñaanal yàlla defal ko fan wu gudd ak wér yaram euh, par rapport ak loolu mu wax noonu si jàngat boobu mu def ci côté combat Eumeu ak Modou Lo techniquement loolu mu wax xel nangu na ko parce que Modou dafay jiital

day yomb si ñoom am ñoom boo tegee pied droit tamit day mel ni da nga leen di jox lu ñuy lekk day yomb si ñoom kooku wax nag mag la ci làmb xam na taxawaayu mbër xam na la muy wax bu baax a baax Eumeu Sène itam nekk na mbër mu nga xam ne nii pour man la ko daloon ca combat bële bu ñëwaatee yaakaaruma ne dina aborder noonu même combat mu dina xool beneen dina wuti beneen feem mu loolu itam mu ngay defaraat ak fiiram di gën a baaxalaat mooy lay wan ne daal combat bu neex a ngi noonu daal kon euh, internet yi da ngeen xaar loolu ci Leewtoo TV incha allah dina moom lañ leen andiloon démb mais Babacar dañuy jeex ak euh, Adrien Senghor bi saison bi ti jeeg léegi 23 journée moo fi demagum mais euh, jàng nañ fi ci sunu lamb bi que montant bi ñu fa investir mat na ci 12 mille 18 millions 500 mille déjà. waaw loolu moo lay wane lutte simple mu ngi dox te saison bi tëjagul weeru koor wee tax ñu pause ñu teg fa 18 millions 500 mille. yaa ngi dégg kon loolu sans compter tey bu duggoon ci xam nga loolu xaalis la kon tamit li ma waxoon si li promoteurs yi rek laay waxaat promoteur yu simple yeeg yu frappe yi yàlla na ñu gën a am li simple moom itam mu ngi wane ne que moom li dafa frappe baa ngi dox waaye mu ngi dox na ñaar yëpp dox nag bu ko defee mbër yi mën a am lu ñuy kii ñu ci profité nuy promoteur yu simple yi ku mel ni Jax xam nga ñoom duudu ñaan euh, ak ñoom ñii tëgg ñëpp ñoom Ablaye Diop sum production maanaam promoteur yu simple yëpp ñoom euh, Leyti Ndong Alpha Samb ñoom ñëpp parce que ku ci ne yaa ngi doxal lit simple bi ci sa côté quoi ba ci Luc Nicolaï sax gis nañ moom tamit mu ciy teg ay miss yu baax a baax ay xam nga même Pape Thialis Faye sax daaw doon na tëgg lit simple kon daal promoteurs yi simple yëpp ñu ngi nuyu daal vraiment waaw waaw Babacar ci loolu la ñuy tàggoo ñi nga xam ne ñuy suivre Leewtoo TV di nuyu Mame Talla suñu Baye Fall bi chéri lébu di nuyu euh, tamit Ousmane mu nekk ci montage bi di nuyu équipe Leewtoo TV bi yëpp ak képp koo xam ne rek Babacar yaa ngi bëgg Leewtoo TV. ay sa di nuyu ñëpp képp ku ñuy suivre ah, di nuyu fépp bépp Sénégal ak foo mën a nekk di balu ñëpp àq di ñaan yàlla yàlla na yàlla def jàmm si réew mi xam nga suñu internautes yi encore une fois rek duñu leen mën a fàtte ñu ngi leen di nuyu a baax a adversaire di nuyu tamit fans club Babacar gi waaye du fàtte waa xew-xew lamb ji baa ngi leen di nuyu waa groupe baax tamit di leen nuyu di leen siyaar ci ndogu yi nga xam ne a mooy ca parcelle di ci di ci président Massamba Dieye ñoom Xaadim laay bu Faas wala laay bu Ndukkumaan Serigne Ndeye Assou ak Badara bu xarañ maa ngi koy nuyu bu baax ñoom Ousmane bu xarañ Lamine bu Ama Sène Issa nuyu naa ñëppa ah, sama gaay nga xam ne maak ñoom démbalatu tey Elimane bu Tafatine Baye Sall assan Mesere xam nga giri bu wakaam su ma limee dinaa juum nuyu naa groupe baax bi yëpp yëpp yëpp bas bu tafaatin du ma fàtte kenn ak les jeunes amateurs ñoom Baba Diaw xam nga gars yi ñoom idaale tout le monde daal su ma limee daal dinaa juum nuyu ñëpp waaye xujja mu nga ba Bergamo Italie ndeysaan dem daf ma woo a dama daf may bëggee xujja maa ngi lay nuyu di nuyu waa Bergamo yëpp di nuyu waa itali waa Portugal waa Arabie Saoudite waa Dubaï képp kuy suivre Leewtoo mais Aysatu yàlla na yàlla def jàmm ci réew mi barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tuuti yaay Sarr du ma ko fàtte moo xadiroos Ndiaye <laughs> nuyu nañ ñëpp. waaw mbokk yi ñu leen jox rendez-vous suba incha allah.